Safa Mesere la non xam nga problème bi maître Babou ni mu ko amplifié ak ni mu ko waxee ak li am daa bokkut dossier la bu doxoon ci diggante ñetti nit kenn ki jaay ñaar ñi Bousso la sant ci quartier Bousso bi dafa jaay kenn ki terrain bi ci ñaar fukki junni kooku jox ko ñaar fukki junni yi bàyyi ko fa mu dem ba mu yàgg mu jaayaat keneen ki terrain bi fukki mu jaay ci juróom fukki dem defar terrain bi dëkk ka jëndoon terrain bi ci ñaar fukki dem ba gis kooko dëkk mu ñëw ne ko kat maa ko mu ne ko dañ maa jaay mu ne ko nañ dem ci kala jaay ñu ànd dem ci kako jaay muy kenn ki ñom ñaar ñu wax ki jëndoon téré bi ci ñaar fu jooni porte ko pelante yobbu ko ci yoon bi taxawé ci kanam musis bi it taxaw ci bar bi borom ñaar fu jooni la ñëk laaj mune mom dañ koy jaay bi kii sant bu sa moom ko jaay ñu nako ci ñaata mune ñaar fu jooni ki sant bu sa ne daf mako may dama ko ko may ñu ne ko waa ñaar fukki yi mu la jox moom pour lan la mu ne ñaar fukki junni frais de borne la procureur bi ne ko frais de borne moom kañ lay commencé di mat cent mille francs ndax xaalis bi da nga koy yóbbu trésor wala xaalis bi da nga koy yóbbu fan mu ne xaalis bi mairie laa ko yóbbu ñu ne ko ana ban këyit mooy justifier na xaalis bi dem na ci mairie bi amu ko ñu laaj borom juróom fukki junni yi yow kër gi lu la ci jotale mu ne kii moomu may kër gi ki sant Bousso ñu ne ko sant Bousso da ko ko jaay wala da ko ko may mu ne dama ko ko may ñu ne waa juróom fukki junni yi nag nan la demee mu ne juróom fukki junni yi dama ko ko may ñu ne ko may ci lan may ci lan la la ko mayee mun a teg ba mu yàgg procureur ne ko walla dala wala dala koo jox addiya ci la maître Babou jug nag buude audience bi coow waaye dama jàpp ne même procureur bi du Diaw bu fekkee dafa yab sëñ Touba yab yoonu murit jana mi nga xam ne mooy président tribunal nekk ci wetam ak salle bi ñu fi nekk ñëpp 80 yi ay murit lañ jana ci kër seigne gàdd Fall gi la nekkon fi la yaro fi la defee lépp maître Babou sel am murit ci biir audience bi té ñoko fekk won dekk Touba bari nañ ndax Jurbel ku ne xam ne ne ñaare ñan fay taxawal ci alaabaat di àtte ñu ci bari Touba lañu juggé maître Babou saa boko diggé mu dem tribunal di plaider rek bu doonu dossier dossier criminel manam dossier yi la fay plaider ñaaré wala viol wala muy dossier yu graw yo xamne ne loolu lay pele di Jurbel mom loolu mom ñepp xamal nañ ko légui bi loolu amé nak ciow am muy xëqante ak président ak ak ak euh, procureur bi ci biir salle bi am lo xamne dañoo amplifier biir gi ëppalal yépp di dégg dégg nga sax d'ailleurs journaliste source a bi néwon ci ginnaw euh, maître babu mom mi nga xam mo ne ci ginnaw maître babu xana wax dëgg yàlla lu juge bi wax war na ko mën dégg ak ñeneen ak ñeneen ñu nekkoon ci biir di ay témoin donc man dama laa tëddal président tribunal bi yëpp lii moo fa commencé lan lañ ci wax sëñ Touba baatub Touba gi sax tudd ci baatub sëñ Touba gi sax dugg ci lan lañ ci wax sëñ Touba ba kenn mën a taxaw daan trente minutes di wax naan procureur yu njaareem ba wax na sëñ Touba lu garaaw a garaaw a nit ñaa nga daanu ca saal ba ana wax. Hmm? question boobu rek la ko ñëpp war a posé ana lim wax léegi nag ñun lañ war a xam mooy gis nga règlement de compte kenn du ko réglé ci ab pas-pas wala tariixa nit ki bo amé mom règlement de compte seen personne seen mbirum personnel la dang koy gérer nan nga ko mëna lijeenté ak noko dug lijeenté mais bul ko jël diko yenn ci ab tarixa wala pas-pasi jambour yëngal ay nit ñu yu xoko daanu man nañ ko attaqué sakaase kërëm wala ñu gañ ko wala nang wala nangam yëf yi dafa romb fofu yëf yi dafa romb fofu kenn du ñëw rek ni ñu diw wax na sëñ bi rek gaay jub dagg ya lu mbax bu fekkante ne ñaari nit la nak yo xamne dañoo am problème lol da ngay lijjanti sa problème mais pas-pas kenn du ci duggal ay problème maître babu nak lol la bëggoon ndax ginnaaw bi dem na ci garasu Dakar bi gaddu ab car ñu indi ci tribunal bi pour nit ñi dugg ci pour mobiliser mbolo nit ñi lank mu talab otom and ci clientam yoy ñew Touba ci la ñewé ci wal fajir gog def déclaration bi mais mom bi mu def déclaration Da faté né mom mo fi jugon bu yagul ci français la ko doon wax mu ne Touba moy dëkk bi nga xamné trafic fi la ëppee jigéen ñi jaay seen bopp fi la ëpp autorime yi trafiquant ci wàllu autorime fi la ëppee ay dépôt de pharmacie yoo ne garab yi ni jaay comme drogue fi la nekk loolu lépp moo ko waxal boppam de dama jàpp ne yow même bu dee da doon avocat ne avocat yoonu murit nga même boo xamee loolu ci tuubaa war nga ko war nga ko sagoo nëbbu ko ngir defaree ko image su dëkk bi. ka dëkk fële ca fongole mi yaakaaru sëñ Tuubaa gëmul menn mag bu déggee ngay wax da lay exposé daan ne murit baa ngi wax kii li mu wax ci murit la koy wax te fekk doo ci kenn kon donc ñun mbirum personnel mu ci lijjanti mbirum tarixa ça n'a rien à voir parce que bokkuñu nit ki bu ma amee yow contentieux ñun ñaar ñoo am contentieux mais mbirum pas-pas ak tarixa du ma ci régler sama contentieux man ak bu mu ci man a doon avocat la day def liggéeyam am na client sañ na défendre client ki mu nekk mais ci problème mu tarixa loolu nag moom dafa sensible luñ ci dugg lu leer nañ ñi la war doon yoonu wi dafa am na muy doxe bala ngaa jug na diw wax na sañ tubaalu lu boo paree da nga naan ah kii kat lii la wax yow mën ngaa jéebaane mënoo ko muñ ba mën ngaa jéebaane xanaa boo jéebaane pare da nga justifier say wax audience bu ëpp téeméeri nit ñëpp génn dal ci sa kaw ne li ngay wax du dëgg ñëpp génn procureur bi li mu waxee dëgg. ñi def laay fat ñi fekkee woon audience beeg muy journaliste yi ñëpp bin génne dañoo dëggal ne procureur bi kat li mu wax tudd fa sax baatub sëñ Tuubaa ba koy ba koy ba koy ñàkke war ma ci koo xam ne Jurbel seedeel nañ ko ak mbaaxam man man xam naa xam naa li may wax seedeel nañ ko ak mbaaxam ci respecté gum respecté liggéeyam ak mën a sonn ci dossier c'est-à-dire bu fekkee nit dafa ñëw ci ab gox di liggéey liggéey bu mel noonu bul nangu nit jug rek vilipane ko sañax ko ci sa kaw keneen ku ñëwit noonu lañ koy defaat bu maître ba bu tàntee ci Seydou Seydou Diaw mi mu sotti ëllëg siis bu fi procureur bu fi mën a ñëwaat bu am meem ñoom contact si da koy sànni ci kaw Mouride rek ne da acca jug leen xeex ñun nag ñoo war a bañe ñu ñuy def ab télécommande di ñu manipuler lu jug rek ñun ñu acca dem leen déedéet li ñuy dugg day leer nañ ndax sëñ bi ci ak nite la woo ci ak nite la tabax yoon wi ba mu agsi fii duñ toog ñoo xam ne dañ ñuy teg comme genre télécommande rek bu dara amee rek ñu manipuler nañ jug leen xeex déedéet ci la ñuy xeex ak ci lan la ñuy xuloo bu ñuy jug ci lu ñuy jug diw dafa wax seigne Touba lum wax murid bu ne ambassadeur nga bama toge ko xamanteni bi bokul ci yoon wi mu am lum wax ci seigne Touba lan la wax bam ñime ma lum ma ñimee man ba mëna wax ci seigne Touba lolu question la murid bu ne ambassadeur dafa nek man bu diw ne nangam ci seigne Touba ta man murid bama nek fa di di fuftu ko ko bitter ñuko lan la wax ak man luñ ma yebee ci comportement ba mëna a ak man mii murid di wax ci seigne Touba bama gën diko vilipande ko defal kenn moy murid bu ne ambassadeur nga foo mën a nekk dañu war a gis ci yow ay qualité yoo xam dañ ci xemmam loo yoon wi ci côté yëpp waaye duñ ci xeebee yoon wi ci côté yëpp murid bu nee responsabilité boobu nga war a am waaye foo toogee noonu mu saaga ci yoon wi rek yow yaa war a njëkk a posé sa bopp question lan moo tax ñu wax li itam jóge ci man c'est l'essentiel tribunal barab la bu dossier di dem rek ku fa tooñ ñu yóbbu la fa yow ak ka nga tooñ ngeen dem dossier ngeen dem taxaw à la barre ñu jugé leen dañuy natt atte loolu du problème mais jug leen xeex mobiliser leen diw saaga na sëñ Tuubaa wax na lu après ana li wax kon donc loolu échec la ci maître Babou def te loolu baaxut ci moom parce que mën nañu indil information ëllëg wala dëgg gu leer naññ te bu ko tegee ci taabu ji duñ ko gëm lii nag gaa yi damaa gis ñu wane ci ak maandu mooy bi mu ñëwee ñëpp dañ ne tekk mais ah benn version doyut an jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu dañuy dem leer leerlu ba mu leer beneen version bi ñëw nag ak témoins yëpp nag dëggal bi mujj ñëw weddi bi njëkk a ñëw foofu la mbir mi nekk mais buñ bëggee def rek lu jug rek ñu jug fa bi yat aywa dóor tël tël tël déedéet yëf yi du loolu du solution de loolu du solution.